déedéet bëgg nañu sax ñëw di la siyaara si waaye tey ñëwuñu ko ci suñu coobare tey président de la république son excellence Macky moo ñu yónni ci yow moo ñu yónni fii moo ñu yónnu moo ñu yónni ci ziyaara bu am solo bi mu ne ñu tëggee ngeen dëkk délégation bu am solo bu autorité yëpp nekk ngeen dem ci Thierno Amadou Yero Aaj yóbbu ko sama nuyu que président Macky Sall mi ngi lay nuyu président Macky Sall mi ngi lay ziar président de la République Macky Sall mi ngi lay gërëm di la sant ci liggéeyu yàlla bi nga xamante ni. yaa ngi koy def fii ci Diamniadio ak Sénégal kontaan nañu dañu leen di sant di leen gërëm ci teertu bi nga xamante ni teeru ngeen ko ñun président nag nee na ma soo demee ci Thierno Amadou Yero Sénégal am jàmm ndaxte Sénégal su amee jàmm ñun sénégalais yi dinañu am jàmm président ci boppam dina am jàmm ndaxte président su amee jàmm te réew mi amul jàmm moom du am jàmm loolu moo tax mu ne ñu sàkku ñaan nga ñaanal ñu ñaan Sénégal mu nekk réew jàmm. Senegal rew jam la waye ñaan bi moy ñaan pour jam sax jam bañ ko jëgé surtout so nekké ci ben contexte bo xamanteni rew yu bari yo xamanteni dañ ñoo wër tay rew yo xam sax amna nañu ak ñom frontière yenn saay ñom dañuy am fitna ñun nak yalla def na suñu dëkk bi nek dëkk jam président na nga ñaanal jàmm jooju sax tey nag dafa nekk bés boo amante boo xamante ni dafa nekk bés bu am solo ci président Macky Sall loolu tamit bëgg na nga ñaanal ko si mooy tey dafa def li ñuy wax lancement Sénégal ville propre mooy dëkk bi Sénégal set dëkk yi set dëkk dëkkaan yi set moo tax tey ci suba fa dëkk dafa jóg ànd ñu dëkk ca quartier ba ñuy balee quartier bi di balee di setal di setal loolu nag la wax ne fépp ci Sénégal ku nekk na nga dellu sa gox ngeen def loolu mu tudde ko anglais di ko wax clean day waaye rek mooy bés set setal loolu nag président dafa ne dëkk jàmm lu am ci dëkk moo tax mu waaye nag nee na dëkk set sel lu am ci dëkk loolu moo tax mu lancé Sénégal ville propre ne loolu nag pour mu nekk nguur gi ñoo ci jóg lépp loo xamante ne dafa nekk jumtukaay yoo xamante ne war nañ koo dimbalee collectivité locale ak askan pour yu bale setal seen dëkk ak seen quartier ñu def ko waaye nag set ku nekk nag yaa war nag setal aussi set dafa nekk loo xamante ni du état rek du nguur rek du gouvernement rek moo mën a setal déedéet nekk dia sedang sa bopp dia sedang yaay setal dia sedang ku nekk yaay Mary sa quartier dëgg la nag maire yi moom maire Moulay ak état bi am na ci rôle boo xamante ni ñoom tam war nañ def def dem na sax ba ne léegi sax dinañu am Sénégal benn sart benn loi boo xamante ni ñi nga xamante ni dañuy yàq wala ñi nga xamante ni suñu seetalee ba pare ñoom ñoo ñëw di saltel loi boobu mun a dal ci seen kaw dina nekk nag ay pénalité ay amende yoo xam ne moom la ñuy def te ñi nga xam ne dañuy jóg pour

Musa punya gejala Yeah.

سره ليها وكذلك ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير Değil benim görmüyorum.